an tusalliya wa tusallima ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa an turiyani wajhi nabi muhammad salallahu taala alayhi wa sallam wajaal kalaami rasidan wa mursidan wa fikrati nawir wa qalbi arsida mbokki taalibe ñu ngi leen ziar baax a baax di leen jox seen wàcce waaye di leen nuyu ñu ngeen gi nuyu muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di ànd ak yéen suñu jotaay yóbbalu bis bi ba léegi di ko ànd ak suñu mbokki internet yi di AG Prod TV di ñoo xam ne ñu am passif lañ ci liggéey bi ñuy liggéey ak jubluwaay ak farlu te jëlewuñ ci lu dul xamal doomu aadama yi ngir ñu xam seen wàllu diine ak xam seen pas-pas ci àdduna ak liy defar seen àdduna ci xam-xam boo xam ne xam-xam bu sell la ak xam-xamu sariya seen mbokk seen xarit Mortala Ndiaye moo koy ànd ak di ko def ak yéen di ci ziare mboolem koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun di ziare sëñ Mame Gor Sylla mi nga xam ne moo yor suñu caméra di ànd ak ci liggéey bi ànd ak waa AG PROD TV ci liggéey bu bi. di wax ne yàlla yàlla yokku leen defal leen tawféex ba li ngeen bëgg yàlla defal leen ko ci àdduna te mooy télévision bi gën a dem ba gën a yokk gën a yaatu lool ci àdduna fépp ba ñëpp mën koo teewee di ziare képp koo xam ne soppe nga ak képp koo xam ne yaa ngi déglu jotaay bi di gis commentaire yi mu am solo lool te itam di ñuy gën a encouragé di ñu gën a soññ ñu gën a ànd ci liggéey bi waaye ñu xam ne xam-xam bi ñuy wax lu ñuy toxala rek doonul suñu xam-xamu bopp ñoo gën a tële ñëpp ñoo gën a manqué ñëpp ñoo gën a mën a gën a def jëf joo xam ne jëf su manqué la waaye ñu jéggul rek ngir ñu partager li nga xam ne mooy xam-xam jàng ba noppi jàngale mooy lépp ndax yonent bi saa sax gën ci nit ñi mooy ku jàng alquran ba noppi di ko jàngale nee na moo gën ci nit ñi yàlla yàlla gën a defal tawfiix ba bu xamee di ko jëfe mu bañ a romb suñu nopp rek génn ci biir dugg ci bee dañ koy enregistré suñu biir xol di ko ban a enregistré ci suñu biir nopp buñ ko enregistré mu jàll suñu jëmm suñu jëf di ko mën a jëfe tey dañu indi suñu bind moo xam ne mu am solo la day wax ni lépp loo xam ne jëf la rek mu ngi aju ci yéene wa qawluhu radiallahu anhu salaamatu kullaha fi niyati al xayri wa qawluhu wa fi'luhu mu ni lépp loo xam ne jàmm la mu ngi aju ci yéene lu ju rafet yéene ju ci la jàmm nekk nit ko su yéenee yéene ju rafet rek ci la jàmmam nekk kon nit bu yéene na yéene li nga xam ne mooy jàmm kon mu ni fa na nawaa xayra aw faalahu aw xaala li axihi xayra nee képp ko xam ne da nga sa mbokk mu baax loo xam ni aw yiw la wala nga jëf ko ci moom wala nga wax ci moom fa innahu yujihi ilayhi mislu dalika wala wa yenaanu alxayra maan nee na koo xam ne dafa jël aw yiw yéene ko mbokk julit yiw woowu day delluwaat ci moom waaye nag mu ni wa man nawal aw xaala aw faala charra li xayri fa inna charra yarjicu ilayhi li annahu laa yu jude muddaxaran aw mustaqaran fil xayri mu ni képp koo xam da ngaa jël lu ñaaw yéene ko koo xam ni kuy def lu baax la loolu nga ko yéene ci lu ñaaw ci yow mu tegaat ci ni wa man tawajjaha xayra ilal mushi fa inna xayra yarjiu ilayhi li annahu laa yajidu muddaxaran wala maqaran mu ni képp koo xam ne da ngaa jël safaanit yéene ko koo xam ne kuy def ñaaw la loolu nga du mën a dem ci moom day ñëwaat ci yow fa in nawaa musiin lil musii charran aw qaalahu aw filahu fa in sara yusibuhuma maan li annahu madaxaran aw maqaran fi kulli waxidin minha mu ni ñaar ñoo xam ni danoo bon bu ñu yénantee loo xam ne lu bon la kenn ku ci nekk la nga yéene sa morom day dal ci sa kaw ndax kenn amul ci yow loo xam lu baax la dafay wax ni ci leeral mu ne ñett ngi nii wala ñeent mu ne képp koo xam ne danga nga lu baax koo xam ne ku baax la la nga yéene ci lu baax ci yow la dellu siwaat waaye su fekkee da ngaa jël lu baax yéene ko ku bon lu baax la lu nga ko yéene waat day ñëwaat ci yow ndax lu baax la amu fa mu nekk amu fa dëkkuwaay ndax moom deful lu tax mu am fa mu nekk waaye képp koo xam ne dangaa jël loo xam ni lu bon la nga yéene ko ku baax lu bon la nga ko yéene woon day si siwaat ci yow ndax la nga ko yéene ku baax kooku amu fa mu nekk amu fa mu dëkkuwaay ndax jëful lu tax mu am fa mu nekk mu ne képp koo xam ne da jël nag lu baax yéene ko ku bon la nga ko yéene day del siwaat ci yow ndax loole nga ko defal amul dëkkuwaay ca moomoo waaye koo xam ne ku bon la yéene ko bon lu bon ñoom ñaar ñëpp lan yéenante day dalante seen biir ndax fan jëm am na fa mu kenn ku ne la nga ca moom da nga ko jël kon nag mu wax ni in ahsantum santum li an anfusikum wa in shatum falaha kon na ngeen yéene boo leen di def lu baax na ngeen yéenante seen biir lu baax kuy jëf na nga def lu rafet jëf lu rafet mooy fexe ba yéene nit ki lépp loo xam ne ci àdduna mën na ko jagal mu def ko lépp loo xam ni du jagal àdduna mu fexe loola mu yée bañ ko ko yéene boo gisee nit ki am lu baax nga yéene ko ko ci mbégte soo gisee nit ki yàlla teral ko nga yéene ko ko lépp loo gis nit ki loo xam ne safaan la nga fexe ba dawal ko ko te bu ko loolu dalee nga nga nga jéggalu ko sa borom te wàññil ko witte waaye léegi jamono bi ci xew mooy yéenante lu bon ak di ko waxlante yàlla na ci yàlla musal kon nag nañ fexe di jëf lu baax moo am solo ndax alxuraan dafa wax ni wa man yattaqillah yaj'al lahu mahrajan nee na képp koo xam ne da ngaa ragal yàlla yàlla wutal la bunt boo jaar di génne foofu ci bunt ba kon yàlla soo ko ragalee mu la bunt boo xam ne fa nga jaar di génn ittaqillaha xaysu kunta ragal yàlla fépp fu ngeen mën a nekk kon lépp lu waaye def na ko def yéene joo xam ne yéene ju rafet la ndax yéene ju rafet mooy tax doomu adama bi lépp lu mën a yittewoo yàlla man ko koo defal moo doon tawféex kon nit ki soo ko yéene yéene ko lu baax te li ngay def ci nit ki ba tax yàlla sunu boroom yëkkati la wala mu kawel la wala kooku yàlla yëkkati ko wala yow mu wàcce la yàlla sunu borom mooy xool saa su ko neex ku ko neex mu yëkkati ko xool ku ko neex mu wàcce ko xool lu ko neex mu dogal ko lépp lu waaye def wala lu waay am suñu boroma su fekkee nanga nga dogal sunu borom rek yàlla dana la dimbali ba la nga bëgg ci loolee yàlla defal la ko li nga xam ne yéene nga ko nit ki ci alalam wala ci yaramam wala ci ay jëfam ci lépp loo xam ne lu baax la na nga def mu doon loo xam ne lu rafet la ndax yéene moom bal la saa boo ko sànnee day dellusiwaat ñëwaat ci yow te alxuraan dafay wax ni yéen doomu aadama yi dee leen soppante tey bëggante te bëgg bokk génn buum goo xam ne mu ngeen jàpp te bu ngeen tàqalikoo day wax ni yéen ñëpp kenn ku ci nekk man maa la bind defal la nga doon lépp loo xam ni bëgg nga ko ci sa àdduna ma defal la ko ngir ngeen jariñante te kenn ku ne moo gën te yàlla dafa wax ci alxuraan ni inna jaalna fil ardi zinatan laha li nabluwuhum ayuhum ma jaalna ala ardi zinatan laha li nabluwuhum ayuhum axsana nit ñi man maa leen bind ci suuf wàcce leen ci suuf ak li fi nekk ngeen taaral suuf si waaye li ma leen bindee bindeewuma ko lu yéen ngeen décorer suuf si nit ak bàyyi maag ak xarak bëyëg ay tabax yi fi nekk ba ci caméra bi yeeg lampe bi ma nekk ci man jàkkaarloo man lépp rek suñu borom ma ko bind ngir taral suuf si kon doomu aadama yàlla dafa bind ngir muy taral suuf si kon ana moom doomu aadama lu doon kon yàlla dafa laa bind ngir ngay taral suuf li li ëpp solo ci ñun mooy nee na ñu fexe ba di rafetal suñu jëf rafetal suñu jëf nag yéene ci rafet moo ci jiite yéene su rafetee lépp loo jëf mu rafet ndax innamal a'malu bi niyyati lépp mu ci yéene kon nag bu ni yéene sunu moromu doomu aadama nañ ko yéene loo xam ne aw yiw la ndax loolu ñu ñu ko yéene mën a dell dellusiwaat te bàyyi soxor ak iñaan ak yàqalante ndax loolu xol bu dëgër moo koy def nit am dara nga yéenewu ko ko wala nga yéene nit safaan loolu dafay dugg ci al riche riche mooy ngay xool nit koo xam ne dafay tàbbi ci kàmb mu wér nañ ne war nga ko man a wax ni ko taxawal nga bàyyi ko mu dugg ci kàmb ka loolee bu ëllëgee yaag moom yéen yéene bokk bàkkaar ba wala yow loola yow ko def ëllëg bàkkaar bi ci loolu ci yoolu jëm yoon bi sax dafa waxoon ni ba ngeen ci mbedd ku leen nuyu ne ngeen ko fay boo leen gisee danger ne ngeen ko écarté su ngeen nit nuyoo ne ngeen ko fay kon gis danger ci nit ki écarté ko di ko bàyyi yéene ko ko ngir ba mu tàbbi ca bu ëllëgee bu fekkee looloo ko rey ëllëg su borom la ko laaj kon yàlla ñu yàlla defal tawféex ak xéwal ba suñu xol ak suñu xel ak suñu jëmm di yéene nit kilo baax yàlla ñu def yéene suñu yéene mu dul yéene lu gën kon yàlla am na ko mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal in uridu ilal islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu in uridu ilal islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf